تُبْصِرُونَ mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah c 3 moo dellu soit ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko c 3 bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax ñu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 76 46 wala ñu woo Serigne Ahmed Tidiane ca Matam ci 77 424 23 21 ku ci bëgg yeneen i leeral ak foo mënti nekk ci biir réew mi wala bitim réew mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun حزين jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen seeraat bu baax a baax a baax mu mel ne ñu ngi fii si jàmmalaay si julli géej gi nga xam ne Cheikhul Khadim julli woon na ko si océan Atlantique bi ren ñu koy fàttaliwaat mu tombé le 21 septembre 2022 gis ngeen ni nga xam ni noonu la mbooloo mi di commencé tabbi ci bërëb bi mu mel ni waxtu tisbaar mooy soog a jot ren nag euh, liggéey bi sëriñ bi dénk ko ki nga xam ne mooy soxna Soodo Xumma moo ànd ko mbokki taalibe yëpp nga gis ni nga xam ne noonu la ko Hizbut Tarqiyyah àndee ren nga xam ne démb lañ tàmbali jàng xasida bi tey ñu xëy si suba gi di ko woyal ànd ko mbokk taalibe yi ñu jugee màggal le 15 tey 21 ñuy fàttalikuwaat julli géej gi mu mel ni Serigne tubaa julli julleem géej gi day julli koo xam ne amaana tey bu faatoon waxtu woo tey wala tey julliwu ko woon maanaam mun na am ni màggal Touba doo am wala leneen ak leneen si yoon bi doo am kon day bis boo xam ni day bis bu màgg ndax Serigne Touba jaayante gi nga xam ne jaay jaayante woon na ko yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jaayante nga xam ne jaayante woon na ko suñu borom waraloon waxtu julli mu jaral ko lépp bam ba muy sànni der bi sax di julli wax nañ ni defe ko ngir dara waaye da ko def ngir joxe waxtu suñu borom bi kon wax loolu la ñuy fàttali ko tey ñu ngi fii si jàmmalaay nga gis mbokk taalibe yi nga xam ni noonu la ñuy teewee xanaa di ñaanal ñëpp rek barke sel xadim lépp loo xam ne rek def nañ ko si ay xasida def ko ci ay kaamin def ko ci ay xéewal saa borom defal ñu ko tawféex defal ñu ko taysir defal ñu si jokkate barke sel xadim di ñaanal ne Mouhamadul Muntaxa saa borom yàggal ko fi lool doole ko kattan di ñaanal soxna Sooda bi nga xam ni moom lañ dénk liggéey bi yàlla na yan bi oyof lool barke Seexul Xadim ndax gis nañ ñi nga xam ne noonu la ko mbokk taalib yëpp ànd ak moom di ñaanal ñëpp di santal ñëpp di gërëm ñëpp di leen bàyyi rek élément ñu xool fii ba ca kanam incha allah ba waxtu julli bi bu neexee yàlla ay zamin ni laaw hind jeewali iblisa is naadaytu bi awali wali laaw hinna deewali ci fàttali rek ñoo ngi fii ci jàmmalaay muy julli géej gi di julli gi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul julli woon na ko ci géej gi ci atum 1895 ñu tàmbali ko dundal nag ci atum 1995 ak kuréelu julli géej gi ci njiital soxna Sooda Xuma comme ni ngeen ko xamee atum ren nag mu am ci taxawaay bu ràññeeku bu Hizbut Tarqiyyah taxaw ci wetu soxna si ci njiital sëriñ Yuusufa Diop mi nga xam ne mooy jëruñ daara ji loolu lépp nag di amee ci ndigalul cheikh Mouhamadul Mountakha xaadim cheikh mun Mountakha xalif général des Mourides ñu xam ne ci ndigalam la loolu yëpp di amee kon ñi ngi fii di waajal waxtu julli gi nga xam ne julli takkusaan lay doon ci njiitalu imam euh, Serigne Fallou Mbacke bu sëñ Abdou Khadir ñu xam ne mooy jiite julli gi comme ni ngeen koy gisee nii léegi ci kanam ci image yi ñu xam ne kon daanaka sàppe yi moom tàmbali na door na nit ñi ñi ngi ñëw ñi ngi def mise en place bi tamit euh, ci officiel yi lu mel ni maire yoof tamit teew na fi léegi daanaka ci kilifa yi ñi ñi ngi ciy ràññee ñu bare bare bari ñoo xam ne tàmbali nañoo teew kon ñu wane la leen tuuti rek ak image yi la xam ne Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi ko julli woon ci atum 1895 ñu koy dundal nag depuis 1995 ba léegi. waaw li moom mbégte lañ ci am ndax day euh, firndeel euh, ndam li nga xamante ne suñu borom jox na ko sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ci kaw ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak nasaraan si di ko jaay doole. lii day wane ndamal lislaam ci kaw ñi nga xamante ne ñoo àndoon bëgg naxasal li euh, sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké taxawaloon fële ca Bawol. lii day wane ne nit loo nekk am ci ngëm-ngëm ci yàlla ndax sëñ Touba bu amul woon ngëm-ngëm ci kenn ak suñu borom ci kennal yàlla wóolu ko wàkkirlu ci moom du am taxawaay bi mu am bay julli ci géej day waxit ne nit loo ne gëm ko sax ca am ca Pastef ndax loolu tey moo waral sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké la mu sosoon màgg na tey ba sax ba jébbi ba ami ren bay ñëw fii ci suufu Seydina Limaamu alayhi salaam di taxawal li nga xamante ne mooy ñaari rakk yu koy màggal donc loolu day jàngale bu rëy moo ci nekk ci ñun ndawi réew mi ci ñun way politique yi xam ne li fi mag ñi bàyyi ci xam-xam ci jàngale ci taxawaay buñ ci tënkoo ba ña roy ci kenn roy ci ñoom ca mag ña jàpp naa ne réew mi dina tegu si yoonam su xaliku tel daanaka képp ku nekk ci kaw suuf yàlla mën na la fi teral mën na la fi teral fii nga jaamu ko gëm ko jaamu ko am fi teraanga ci àdduna dem ca àllaaxir nag am ca teraanga yi nga xamante ne du jeex ca jannatu donc ñu ngi soññ suñu bopp di soññ ndaw ñi si gëstuwaat mag ñi bàyyi leen xel ci li nga xamante ne mooy seen waaw liñ ci yëg ñun ñëpp maanaam ñu ngi ci lancé màggal gi gannaaw bi ma leen nuyoo ziar leen màggal gi moom euh, xam naa lii day bokk ci wàccaayu màggalu woon ndax daara ji noonu la mës a tëddee bu ñu mësaan màggal rek dañuy waajal euh, bis bu ñu màggalee dix-huit safar dix-neuf safar la ñu waajal woon loolu moo mës a nekk itam langage yu sunu jëwriñ Sëñ Atou Diagne ñu ngi ñaan sunu borom dool di taw féexam li tax ma ubbee ci daara ji di nuyu bu baax euh, sañ Youssou ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo nekk ci daara ji rawaate na ku mel ne sëñ Lamine sunu sunu jëwriñ ci wàllu communication ñoom sëñ Assane ñoom ñëpp euh, seen taxawaayu ren bi dafa feddaliwaat ni daara ji matériel lu sëñ Touba bi sëñ mun Muntaxa joxoñee soxna soo doxuma daa dee ni asaaliha la ndax taxawaayam bi ñu koy tàmbalee quatre-vingt-quinze sëñ Saliou moo ci joxe ndigal dem na ba yëgg ci ni bés bu mat a fàttaliku def leen ko sax muy bésu Ndakaar soxna May bi mu déggee loolu dafa daal di kuréel gi kon man sama kuréel la nataal bii ngeen di ubbee ku ko bëgg seetaan gis ko ci internet beeg yëpp sëñ bi ñu dessiné ko ak bato beek muy julli ci géej gi daanaka soxna May moo sabab nataal boobu te julli géej gi moo ko indi màggalu julli géej gi en 95 bi mu amee téeméeri at Cheikh du Mourtala daa dee ni moo koy jiite si julli jin fi jëkk julli sëñ Mourtala moom sëñ Tuubaa moo jiite julli ji fii keroog sëñ ànd ci liggéey bi jël taalibeem boo xam ne moo jëkk nekk jëwriñ ji sëñ Nazirou Touré booba mu ngi ci commandement territorial bi waaye terewul mu nangu jiite kuréel yi te xam ngeen booba jamono yombewul nii mu yombe léegi booy sol tenue wala nga nekk ci yenn place yi doo fesal sax murit waaye terewul sëñ Nazir Touré jiite ko ñu koy màggal sëñ Abdou Hakim am na at moo xam ne am na at yoo xam mooy ñëw di ko jiite si bu sëñ Muntaxa amee ngànt ba nin koy tege ci loxo sëñ Fallou moom sëñ Abdou Khadir mu koy jiite si moom la ñuy seenu nii màggal gi bi mu jógee sëñ Nazir Touré ñëw ci sëñ Baba Gueye sëñ Baba Gueye jëwriñ moom it yor ko yorin wu rafet ñu jóge ci sëñ Baba Gueye mu ñëw ci ki nga xam ni itam moom mooy sëñ Alioune Badara Cissé murit moom it mu yor ko yorin wu rafet sëñ Mountakha bi mu demee ba yëg ni laajaat na ñu ñu ñu ñu yeesluwaat mu woo Cheikh Makhtar Diouf wakaanaa xan alena nasul mumin sëñ Saliou joxoon di doomu président Abdou Diouf ni kuréel gi am na fu mu toll yaa ma ci doy Cheikh Makhtar ñëw yóbbuwaat ko ci beneen niveau muy niveau bi nga xam ne tey jii fii ci lañ ko fekk ci lañ ko fekk nii ñaari at nag yii dox ci Covid bi fekk moom it mu am gànt am yeneen liggéey yoo xam ni sëñ bi fal ko ni ko nag léegi liggéey bi dama koy jël téye ko dénkan di ka jëw liñu Alaaji Mbàkke yu fay bi mu ko dénkee Alaaji Mbàkke yu fay yàlla dogal Covid mi ñëw ñu koy màggal symboliquement fii bu ñu ñëwee julli sëñ Fallou ñëw jiite ñun ñu tasaaroo waaye soxna Soda euh, terewul pas-pas ak taxawaay bi mu amoon naka jekk mu taxaw ko Euh, uni liggéey université bi mu ni sëñ bi nan naa naa am lu ma ci sasoo gannaaw mbirum jigéen waañ bokk na ci naa jël waañ wi sasoo ko waañ wi jébbale na ko bi mu ko jébalee nag la mu ndaxa nag ni ko yow na naka jekk ma xam ni doxoo doxinu jigéen kon nag lee waruñu tënku rek ci ni euh, kuréel gi góor a war a jiitee wala nangam ak nangam léegi nag fafal sax nekk njiit li alaaji Mbàkke yu jàppale la nga gis fii nga xam ne fi la ko yegsi mm. mais jëwliñ mm-hmm. bis bii mm-hmm. bu ñu demee mhm. ay at ci gannaaw mhm. xalaat ni nëga sii mhm. sëñ bi mu ngi waaj bëgg julli tisbaar madame boobu di ko laal ni ko sëñ Moussa Ka nettalee ci Jasaawu Sakkoor mu gi mu xam ni du julli lu dul ci bopp waxtu ci muxtaar mi rek lay julli te bakkanu boppam bii jaralu ko muy faat waxtu sunu borom bi jël der bi wàcc ci géej gi ñu war ci jàngee ñett bi ci jiitu mooy li ko jaamu yàlla jaral mhm. la mu waxoon sallallahu alayhi wa sallam ca daaru xudóos mhm. bi muy tàmbali liggéey bi mhm. ne ko sàkkuma bakkan bi bay xam lu mu àttan lu mu àttanul waaye lun ma mën a teg rek jom gi ak bëgg bañ a tàggatoo ak yow jaral na ma jaral na ma googu ci la sëñ bi wàcce ci géej gi ñu wàcc jànge loolu dogu boobu ci boobu wàkkirloo ci sunu borom waaye ñu wàcc jànge itam fit bi nga xam ne moom la wàcce géej océan atlantique ñun ñii sax gaal yu ndaw yi ku ci duggoon léegi buñ la bëggee koo xam ne sax meloon na jiili njang nar nga dëkk wala yaa ngi dëkk Gorée wala yooyu dëkk yi nga xam ni ay dëkk ndox la waaye fit gi fit woo war nañ ci jàpp kon boo wakkirloo ci yàlla li lay tax a mottali li lay mottali mooy fit fit woo war nañ ko jàngi ci sëñ waaye war nañ ci jàng itam sëñ bi noblesse ngor gi mu am dellusiwaat ci gaal gi mooy kóllëre gi dox digganteem ak sunu borom subhaanahu wa taala ak li mu ni may may damay liggéey li xadimal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ak woon chaafian li xaw ak xaadiman fi mi loolu moo doon contrat bi mm-hmm. sunu texe mm-hmm. ak doon xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi mm-hmm. bi yëpp boo bindoon bataaxal tey jii ni xaadimu rasul la jëm kenn du ko yóbbu ca Madina Munawara Touba lañ koy indi waaye tey jii itam adduna bi yëpp boo nee góor gi demoon géej kel mool yaa ngi dem y a des milliers de pêcheurs la mer en mer chaque jour ah. mais mais lettre du jóg ñu ni góor gi demoon géej ñu jox ko ñooñu sëñ Touba rek lañ koy jox léegi nag ñun léegi kon sunu contrat ak sëñ Touba hmm. fidélité boobu hmm. ñu ngi koy roy ci yéen bu baax a baax is bu tax yaa ngi wane yoon bu baax a baax ñu ngi leen di sant di sant jëwliñ sëñ Youssou aya ni laaw hin da jeewali is naataytu biya wali